أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوانجي عندك ين تيري الله بتبارك وتعالى ba tey nu toll ci suura almaida bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël benn aaya muy aaya 4 aaya bi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy yoonal gi ñu yoonal laaj ku xamul aji xamul yoonal nañ ci moom balaa muy jëf wala muy wax mu laaj masruiyatu sual man la yaalam amma yambagi lahu an yaalama sunu diine jii de islaam yoonal na ci koo xam ne xamul dafa bëgg a xam dafa bëgg a jëfe li mu réere ci diineem mu daal di koy laaj waaye laaj liñ ciy bëgg lépp nag mooy ki xamul loolu lañ ci gën a bëgg mooy ki xamul na laajte fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun yàlla nee na bu ngeen xamul laaj leen ñi xam léeg-léeg doomu aadama dana xam waaye bëgg a xamal ñeneen mu laaj ab laaj comme ni jibril defoon fekk yonent bi toog mu ñëw di ko laaj mbirum alaxira yonent bi ne ko kii laaj moo gën a xam ki mu koy laaj kon sharia yoonal na ku xamul mu laaj mbir moo xam ne xamu ko loolu danañ ko jàng tey ci aaya bi nga xam ne moom lañu war a jël ñaareel bi danañ jàng hilyatu sayd dagan bi nga xam ne dagan na ko na rëbb su fekkee nag in tawaffarat suruutu su fekkee ay sartam mat na gis nga ndeke sunu diine diine lislaam lépp lu ci ab jullit di def war na koo xam ndeke même rëbb sax am nay charte nekkul rek da ngay toog ba mu neex la nga gàddu sab fetal wala sab mëqadoom wala sab fet wala sab xeej wala sab xaj wala sab aigle dugg àll bi ne da ngay rëbbi balaa ngay def loolu war ngaa xam lan mooy sarti rëbb lu tax ndax nga mën a lekk lu dagan nga mën a moytandiku lu xaraam sart yooyu bi ci njëkk mooy li ngay war a rëbbi nang ko xamal nang ko jàngal nu muy jàppee fekkee ab xaj la nañ ko tàggat nañ ko jàngal mu nekk xajum rëbb su fekkee base la muy ab aigle na nekk bu ñu jàngal ba nga xamante ne bu jàppee dana dagan ci yow mii nga xam ne yow yaa koy jëfandikoo ñaareel mooy loolu nga xam ne danga koo jël di ko jàngal nu ñuy rëbbee boo koy yónni muy rëbb di ko dàq muy dem boo ko naan aca tuddi ci turu yàlla bismillah aca tuddal turu yàlla balaa mbir mi départ sunu borom subhanahu wa taala foog nga tudd ko ci li ngay yónni cim rëbb nga doog koo yónni loolu ci sart yi la bokk na ci sart yi ba tey an laa yàkkula minhul jaarix li ngay yónni bu jàppee rëbb mi muy jàpp bu mu ci lekk bu ci lekkee rek perte nga ko boppam la ko jàppal bu dee xaj bu dee picc moomu ma leen doon wax sànq base ci arab ya bu dee fii yaakaar na moom la ñuy wax aigle picc moom xam ngeen day rëbb li mu jàpp wala xaj bi li mu jàpp bu ko lekkee rek perte nga bu mu ci lekk beneen bi ci àtte yi mooy dagan na ki yor fetal dagan na rëbbe fetal wala dagan na rëbbe fet wala lenn ci jumtukaay yooyu nga xam ne dafa ñaw wala xeej xam ngeen ne am na jumtukaay yoo xamante ne am na rab yoo xam ne boo koy rëbbi léeg-léeg fett ngay yor léeg-léeg xeej ngay yor léeg-léeg am na ci ñoo xam ne sax bu ñu amee moyens yi ñëw ak mëq dóom moom ngeen tuddee fi karabina fetal googu am na ñoo xam ne loolu la ñuy rëbbee kon mbokki jullit yi lii moo leen di wan ne diine lislaam du diiney làmbatu diiney xam-xam la ab jullit jàng nañ ci Laxdari téere bu ndaw boobu ñuy tàmbalee fiq muy soññ di jàngale ay qaida ay règle day wax ab jullit wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lam hukmallahi fihi daganul ab jullit muy def benn mbir lu dul mbir moom balaa mu koy def war na ci xam lu boroomam wax kon soo jógee bëgg a rëbbi sart yii moo war a nekk ci sëg rëbb nga xam ko waaye loolu ñu waxoon sànq ci jumtukaay yooyu nga xam ne dafa wuuteeg yi mi ñu waxoon sànq dafa wuuteeg xaj wuuteeg picc mi ñu waxoon sànq nga xam ne fetal lay doon wala ab xeej lay doon wala ab fett lay doon boo koy sànni tamit na fekk nga tudd turu yàlla boo ko fettee wala boo ko jamee wala boo ko tiiree fekk nga tudd nga turu yàlla bi ngay soqi sox bi mu daal di rey su boobaa mën nga ko lekk donte ne rey ñu ko waaye bu fekkente ne ab rab la par exemple xaj wala picc ma mu dem jàpp soo ko jàppee danga koy rendi su fekkee ba mu jàppee moom dafa jàpp rek xaaru la yaa ngi daw di ñëw moom commencé na koo lekk nga ñëw fekk cuqati na ci charia nee na yow moomatuloo ko moom moo ko moom boppam la ko moomal moo tax léeg-léeg ñiy jàngal xaj yi wala ñiy jàngal picc yi am nañ pexe ñuy def gis naa picc ba mu tudd base moom dafa mel ne dañ koy solal benn mbax ne bu jàppee day bloqué rek téye ba borom ñëw daal di jël li mu jàpp daal di koy rendil boppam wala am na kaaf yi ñu koy denc ñoom ñoo xam ak ki nga xam ne mooy rëbb bi moo xam lu mu koy doyee kon tomb yi bismillahi tabaraka wa taala tey sunu dars ci lii la war a wër mooy mbirum rëbb ak lan lañu war a lekk ñun jullit yi ana lan lañu sunu diine sant ci lu ñu war a jëfandiku ci lekk ci naan ci ci ci lépp loo xam ne aada la mu nekk sunu wet ñu war ko jëfandikoo lu ñuy sol lu ñu war a dëkk lu ñu war a def ana lan moo ci àtte lan la ci sunu diine wax mu nekk benn aaya mu nekk numéro 4 ci suratul maida moom la nu fas yéene jël tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis duñu génn téeréem bi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bismillahi arrahmani arrahim yasalunaka maada uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما عل وما علمتم من الجوارح من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن inna allaha sari'ul xisaab sunu borom ne yasalunaka gaañaa ngi lay laaj léeg-léeg mu ñëw ci alquran sunu borom subhanahu wa taala ne yow muhammad alayhi salaatu wasalaam gaañaa ngi lay laaj mbokk yi yasalunaka yi ñëw ci alquran ñaata la Hmm? yasalunaka yi ñaata la ñaata lañ romb yasalunaka ci alquran 13 la waaye sunu borom subhanahu wa taala di nga gis 12 yi yépp a nuroo bu ci yàlla laaj rek wax na yonent bi waxal tontul ba mu ba mu des benn douze yasalunaka yépp yàlla wax na yonent bi waxal yasalunaka qul yasalunaka qul yasalunaka qul ba mu des benn ba bal la ah binu am na qul xanaa gisoo yasalunaka maada uhilla lahum qul yasalunaka anil ahillati qul yasalunaka maza yunfiqun qul yasalunaka anil xamri anil shahri alharami qitalin fihi qul yépp a am qul mam des benn yasalunaka anis saa boobu dong moo amul qul treize yépp douze yi yépp am na qul gaañaa ngi lay laaj waxal gaañaa ngi lay laaj waxal gaañaa ngi lay laaj waxal ba mu des fooku foofu lu tax lu tax yasalunaka ani saa yàlla utalu ko xul gis nga da ko ne ayaana mursaaha mu ne ko fii ma anta min zikraha mun na nekk léegi foofu ngay wax ak ñoom ah foofu ñuy wax ak yow léegi mun na fa nekk parce que mbirum yowmal xiyaamati la allahu akbar yasalunaka gaañaa ngi lay laaj yow muhammadun sallallahu alayhi wa sallam lii ba tey day wane ne alquran du waxu yonent bi su doon waxu yonent bi la du ko ne yasalunaka ba pare ne ko xul ah kon du ko ne xul kon bu fekkonte ne waxam la yàlla du ko wax waxal tontul waaye gis nga ndeke dañ koy laaj moom amul droit joxe benn réponse lu dul boroomam subhanahu wa taala ne ko mbir moomu lu lay laaj lii moo ci war mbokki jullit yi aaya bi di yasalunaka li tax mu wàcc ورد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يدخل لوجود كلب صغير في البيت الإمام أبو بكر جابر الجزائر نينا ci téeréem bi di ay saru tafasir nee na rot na ñu jële ci jibril alayhi salaam dafa ñëwoon di seet si yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni mu ko baaxoo def di wàcc ci moom yoon wi bi mu ñëwee mu sàkk dugg misaal dafa fëgg yonent bi jox ko ndigal pour mu yegsi waaye jibril lànk bañ a dugg waaw lan moo tax jibril bañ a dugg ndeke dafa am xaj bu ndaw loolu olofi naan kuti ndeke Ousseynou ak Assane ñoo génnoon foofu rek gis benn kuti moom ñu nekk xale ñu jël indi seen biir kër yonent bi ko ci dara jibril ñëw na bëgg a gisee ak yenent bi jibril bañ a dugg luy mbir mi nekk kuti moo fi nekk jibril daan ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam inna la nadxulu baytan fiihi kalb ñun de duñ dugg kër gu am xaj ndeke malaayika du dugg kër gu am xaj ñun duñu dugg kër gu am xaj fa amara nabi sallallahu alayhi wa sallam baadaha bi qatli lkilaabi fa qutilat yonent bi ne comme demee na noonu bis ni ki tey maa ngi leen di jox ndigal képp ku yor xaj këram na ko rey mu joxe ndigal ñu daal di rey xaj yi nekk biir Medina yépp mu ne summa jaa baadahum lenn ci ñoom nag daal di ñëw ba tey yasalu amma yahillu lahum min ummatil kilaab ba tey am ñu ñëw ci saxaaba yi di laaj waaw xaj yi moom lan mooy seen àtte ci diine xaj jàngoon nañ ci suñu dars àllarba yi yi ñuy def buluuxul maraam jàngoon nañ fa lan mooy àttey xaj wala yaakaar naa loolu leer na du jar ñu ci del soir jàngoon nañ fi xaj lu ci islaam wax mu ne ko gaañaa nga lay laaj ba tey mbirum xaj fa anzala allahu taala hadihi al aya yasalunaka maada uhilla lahum gaañaa ngi lay laaj lan la yàlla daganal ci ñoom kon yasalunaka gaañaa ngi lay laaj maada uhilla lahum ana lan la leen yàlla daganal gis ngeen ñii nu raw naw nun moo tax ñii raw maas bi du hasard yonent bi daal leen xayru naas qarni li gën ci nit ñi mooy sama génération du hasard nekk ñu ne ñii ñooy tànn tiif yi xolal ñoom dañuy laaj seen mbiri diine yow yonent lan la yàlla daganal ci ñun lu ñu war a def lan moo dagan uhilla lahum fii da ngay dégg ñu ne garaawul ah waaye amul problème boo demee màkk rek yàlla baal la waaw seen yoon da ngay raatale rek problème bi daal mooy amal amal rek amal noo amee booy sàcc booy fen booy rambaaj booy triande booy tappale booy sos booy carte booy jaay sàngara booy liggéey ci musique booy football booy bëre làmb non loolu yëpp xoolal fi mu nekk nii fii doo fi laaj kenn ba mu ne làmb daa araam pourquoi parce que ñi ko waroon araamal dañ leen ciy jox doo fi wax kenn musique bañ ne araam na lu tax parce que ñi ko waroon araamal dañ leen di woy ah dañ dañ leen di woy sëriñ bi ko waroon araamal am na woykat bal sax yenn saa woykat bi buy woy day ñëw ba grand théâtre sëriñ bi ne ñu def faatiha fale xeeg naa si mu commencé ñaata yoon ngeen koy gis xoolal mbirum góor jigéen Sénégal daanaka nit ñi ni ñuy amee alal yëpp dagan na donte ne dafa xaraam xoolal ñi ñoom lan lañ laaj lañ la ñuy laaj yonent bi maaza uhilla lahum waaw waaw ey waay yow yonent lan moo dagan ci ñun xoolal rek ngir bëgg a dugg àjjana ëllëg ñi tolloon nañ ba nga xam ne waxuma ñoom ñu lekk lu bon waaye seeni soxna sax kenn ci saxaaba yi bu daan xëy soxnaam day jàpp ci loxoom ba ci buntu kër gi di ko gunge su waree génn mu xool ko mu xool ko ñoom ñaar ñu jàkkaarloo mu ne ko ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci ñun mën na ñëw muñ xiif waaye mënu ñëw muñ safara mën na ñëw muñ xiif toog fii xiif bañ a añ bañ a reer bañ a ndékki mën nañ ko waaye nga indi fi lu araam ba ëllëg yàlla yóbbu ñu safara loolu moom mënuñu ko dimbali ñu rek loo fi indi na dagan bu fi indi mukk lu araam allahu akbar ñun tey soo wàccee daan ne sa soxna mais benn waaye daal laa dendaloon quoi vraiment mu fàtte un million ci calpe ma joxaat ko ko loolu la sa soxna di wax yow doo tekki billaahi yow doo te yow doo dem gis nga léegi terme yooyu la ñuy jël doo dem doo tekki doo baax doo yegg ak doo doo doo doo terme yooyu léegi la la dëkk bi yore tey ku for xaalis delloo lu ñu lay wax même boo nekkee chauffeur taxi sax benn waaye fàtte malet nga gàddu ko dem ba rajo yi di wax lu nit ñi di wax ñi ko dégg lu ñuy wax kii kii kii yàlla da koo tàccu ah mais kii du fe ey kii kii jaru sax ngeen koy dimbali waaw mais alalu jàmbur luñ ci wax alalu jàmbur loo moomul gis nga ñii dañoo ñëw laaj yàlla laaj yonent bi maza uhilla lahum ana lan la yàlla daganal ci ñun gis nga bu fekkoon ne mbir mbir mi ci loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam la nekk lu muy wax day tranché waaye day xaar yàlla du jiitu boroomam ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul bu leen jiitu yàlla ak yonent mu ne qul tontul wax leen ne uhilla lakum tayibat yàlla dagal na la ci yéen lépp lu teey lépp lu dagan mooy lu yàlla joxe ndigal ñu lekk ko loolu dagan na wa abahahu li ibadihi almuminin wala mu daganal ko jaami yàlla yi nga xam ne ay jullit lañ loolu mooy at-tayyibaat at-tayyibaatu fi luga baat bi di tayyib mooy lu baax ci làkk arab jamu tayyib wa tayyibu xilaaful xabiis baat bi contraire am baat bi li du lu teey lu dagan contraire am mooy lan mooy lu bon lu baaxut lu ñaaw lu sobewu lu xaraam ibnu barri nee na al amru kama zukira illa annahu qad tattasiu sëriñ bi nee na bi ñu ko laajee lan mooy ab tayyib mu ne ah gars yi dinañ ko waxee noonu la mooy lépp lu baax waaye nag mu ne mun na gën a yaatu qad tattasi maanihi maanaam mën na gën a yaatu buñ ko jël rek daan ne ci lekk waaye yow lan mooy li dagan ñu ne lekk tout court non dafa gàtt dëgg la lekk bu baax ci la bokk waaye lépp ci la bokk mu ne fa yuqaalu ardu tayyib mun nañ wax sax suuf su nangu ñu ne suuf su baax la ah man dama am tool tool bi saa yu ma ci jiyee alhamdulillah kon suuf soosu suuf su tey la ardu tayyib allati tuslihu lil nabaat suuf si day nangu nañu bàyyi ci kon suuf soosu suuf su baax la mën na nekk ngelaw lu gu neex goo xam ne dina la jaral nga génn sa buntu kër sax wala nga ubbi sa fenêtre ndeysaan mu lay dugg mais yenn saa yi am na ngelaw loo xam ne bu amee kenn du génn ku génn da ngay duggaat ne tey day dafa dafa mbooya gis ngeen kon ngelaw sax dina nekk tayyib waaye mbokk yi lekk dina nekk tayyib ndax yenn saa yi ñu tegale lekk goo xam ne di nga xam ne lii macha allah mu ne kañ lay lekk bu fekkee dafa dagan jigéen sax dana nekk jigéen ju baax tayyiba daay man de awma problème ndax sama kër ki ma fa bàyyi daal xam naa ne problème yi du ci dugg ndeke kon gis nga baatu tayyib mën na nekk sax jigéen ju baax mën na nekk fas bu baax waaye mën na nekk baat ndax yonent bi salaa salaam nee na bokk na ci sarax sax alkalimatu tayiba sadaqa wax ju neex sax sarax la kon wax ju baax sax baatu tayib mën na koo nekk gis nga kon baat bi yàlla ne uhilla lakum tayibaat ndekki kon dafa dafa large dafa yaatu suñ ko jëlee tëj ko ci benn ruq rek kon xamuñu li ñuy wax kon juum nañu ndeke mën nga kaa yóbbu ci lu bare bare bare bare bare mën na nekk sax dëkk ndax yàlla wax na ci alquran wal baladu wal baladu tayyib suuf su baax gis nga mën na nekk sax suuf jàngeen yàlla mu ne baldatun tayyibatun wa rabbun gafuur mu ne lan mooy cosaanu baat bii di tayyib mu ne mën na nekk bakkan boo xam ne day bég di bànneexu ak lekk ju neex waaye bu fekkee ci sharia la ma kaana mutanawilan min haysu yajuz mooy lépp loo xam ne dagan na ab jullit def ko dagan na ci moom loolu mooy baatu tayyib lépp loo xam ne dagan na nga def ko rek tayyib ci yow baax na bu dee lekk bu dee naan bu dee sol bu dee tëdd bu dee liggéey bu dee bu dee bu dee bu dee lu mu mën a doon nga ko war a def ci lu baax baatu tayyib loolu lay tekki ci yow at tayyibaatu fi alquran alquran am na nu mu gisee loolu ñu naan lu baax te mooy at tayyibaat aaya yu baree bari ñëw na ci alquran diñ ko firil sunu borom subhanahu wa taala diñ ko wax yàlla wax ci lu baree baree bari mislu atayibaatu min arrizq yu tee yi ci wërsëg yi ak yeneen yu demee noonu yu mel noonu kon nañu jàpp ne alquran wax na ci fukki barab ak juróom benn fi samaniyata awla fukk ak juróom ñett samaniyata ashara mawdian alquran wax na ci baat bii di baatu tayib wa huwa yaxmilu maani alxasan muy ëmb lu baax lu rafet wa naqa ak la set wa tahaara ak laab loolu lépp baat bii di baatu tayib ñëw na ci alquran di ko tekki mbokki jullit yi kon lii lépp alquran a ñëw di ñu ko jàngal waaye suñu delluwaatee ci téere tafsir yi ak nga xam ne ñoo ñuy dimbali pour ñu mën a dégg alquran dinañ jàng ñu ne ahlu tafsir nee nañ anna tayibaatu fi lquran ala samaniyata awjuh baat yi yàlla wax tayib lu baax te dagan ci alquran juróom-ñetti façon la nekkul ne baat bi saa yi ko gisee fii rek lii lay tekki ñoom ñëpp bokk àtte déedéet wuute nañ juróom-ñetti façon tafsir baatu tayibaat bi ci njëkk sunu borom diñ ko wax foofu dagan la fay tekki alxalaal mooy lu dagan kulu min altayibaat ma razaqnaakum waskuru lillah lekk leen lu teey te dagan loo xam ne man yàlla maa leen ko wërsëgal waaye bu ngeen pare sant leen yàlla kulu min at-tayyibaat gis nga lekk leen lu dagan lu teey lu laab lu set fii li muy tekki mooy alxalaal lekk leen lu baax li ma leen wërsëgal man yàlla waaye bu ngeen pare fu ngeen di sant yàlla Sénégal bu ñu lekkee ba pare ku ñuy sant point d'interrogation na ko seen xel eggali wasaani almanna wasalwa am na fu mu wàcc mu nekk man na ak salwa boobu yàlla doon wàcceel banu israil kaw asamaan ñuy lekk foofu yàlla mu ne wa anzalna alaykumul manna wa salwa kulu min at-tayyibat gis nga foofu loolu lay tekki wa laqad bawwa'na bani israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat gis nga foofu loolu lay tekki الثالث السحوم واللحوم وكل ذي زفر ومنه قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات أهلت لهم بنو إسرائيل بنو باندي يب يلا am yàlla xéewal yum leen mayoon ci ay lekk yu ñu war a lekk ci yàpp xéewal la woon yàlla tudde ko ak tayibaat ba ñu mbëroo ba bew ba reew yàlla araamal loolu ci ñoom ne leen yii xéewal yi bu leen ko lekkati gis nga foofu tayibaat lu muy tekki mooy yàpp gu yàlla daganaloon ci ñii ñeenteel azabaih mooy rendi li ñuy rendi yàlla mu ne qul uhilla lakum at tayibaat mooy fii fii lu mu fi tekki mooy azabaih mooy yi ñuy rendi ñëw na ba tey mu tekki alxasan min alkalaam wa minhu qawluhu taala wa tayibaatu li tayibiina wa tayibuuna tayyibaat jigéen ñu baax ñi yàlla mu ne góor ñu baax ñi ñoo leen moom góor ñu baax ñi jigéen ñu baax ñee leen moom ah gis nga baatu tayyibaat li muy tekk ci alxuraan ni ko bëri na ñëw na encore di firi ar rizq at tayyib yàlla mu ne wa laqad karramna bani aadam wa hamalnaahum fi lbarri walbahr wa razaqnaahum min at-tayyibaat foofu lu muy tekki wërsëg dafa baatu tayyib di tekki ñëw na ba tey anwaau tayyib ala al-itlaq wa minhu la tuharrimu at-tayyibaat ma ahalla allahu lakum ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibaat kon bokk yi jullit yi baat bii di at-tayyibaat te tey mu nekk sunu baatu tafsir alquran ne gaañaa ngi lay laaj lan la ñu war a lan moo dagan ci ñoom mu ne qul tontu leen yow sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam wax leen uxilla lakum at-tayyibaat kon mbokk yi li ñuy faral di wax bis bu nekk rek ci sunuy dars ci téere bii di téere yàlla di alquran wallahi ñun dey ñoo am sens nekk jullit ñun ñoo am sens laa wax nekk jullit ñun dey ñoo am sens yàlla wàcce ci ñun téere bi waaye nag dese na noo xam téere bi ñun jullit ñi tey réere nañ lu téere bi di dox ñun jullit ñi réere nañ dëgg-dëgg téere bi li taxoon wàcc li waa ji waxoon keroog ummatun rabbuha nuur wa nabiyuha nuur wa kitaabuhu nuur kayfa tarda an taisa fi zalaam xeet boo xam ne seen borom leer la seen yonent leer la seen téere leer la naka la xeet woowu di nekkee ci lëndëm mbokki jullit yi naka la sunu borom di nekkee leer sunu yonent nekk leer sunu téere nekk leer téere bi sax yàlla wàcce ko pour mu génne nit ñi ci lëndëm kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaas min azulumaat ila nuur ba pare ñun ñëpp ñu nekk ci lëndëm nga gis jullit boo xam ne day réer ba du xam lu muy def du ma wax benn jullit ay jullit xala Sénégal rek ñaata pour cent musulman quatre-vingt-quinze pour cent musulman ah est-ce que quatre-vingt-quinze pour cent boobu mbokk yi ñoom ñëpp ci lu leer lañ nekk ñoom ñëpp xam nañ téere bi lu muy dox li gën a garaaw ci Sénégal téere bi téere barkeelu lañ ko def téere barkeelu balaa ñu koy jàng rek am ku dee bala ñuy jàng alxuraan am ku dee saa yoo gisee fukki paa yu toog muuroo seeni kol yor ay téere ay jukki moom dafa am ku dee d'accord ngeen wala waaw bañ nañ ko sax ba léegi dañoo am GIE groupe kaamil GIE bu la yàlla nattoo nga fekkee ko sax bàyyi dañ lay siis bokkoo ci de ñun cinq kese la ñan lañ yàlla dimbali yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko ixwatal imaan mbokki jullit yi kon lii mooy ab tayibaat yàlla mu ne gaañaa ngi li koy laaj tontu leen lii waaye nang leen wax ne wa ma allamtum min aljawaarihi ak lépp loo xam ne jàngal ngeen ko seen rab yi nga xam ne da ngeen leen yar pour ñu rëb pour ngeen koy rëbbee wa ma allamtum mooy lépp lu ngeen jàngal min aljawaarihi ci rab yi ngeen di yar pour ñu leen di rëbbal ngeen ci fàggu di ci am loolu mooy aljawaarih mën na nekk xaj mën na nekk picc moomu di di jàpp di rëbb wala mu nekk benn jumtukaay boo xam ne moom ngeen di fàggoo moom ci ngeen di amee alal wala ci ngeen di amee lu ngeen lekk loolu mooy aljawaarih kon li ngay dégg fi yàlla wax la mooy wa ma allamtum foog ngeen jàngal leen nag waaw mbir mi mbir mi ngay liggéeyee mbir mi ngay tàggat rab wi ngay tàggat foog nga jàngal ko nu ñuy rëbbee borom bi tabaraka wa taala mu ne mukallibiin ay mursiliin da ngeen koy yónni ala saydi mu dem rëbbal leen sawaun kaanat al aljaarihatu kalban aw tayran mën naa nekk ab xaj wala mu nekk am picc fokk ngeen yónni ko yéen yéen a koy tàpp ne ko bismillah mu départ dem jàppi la nga koy jàpploo mu dem rëbbi ko loolu tamit na ngeen ko bàyyi xel kon gaa ñi laaj nañ ab laaj ne su fekkee xaj bi dama ko yónni mu daw jàppal ma ab njombor bi mu ko jàppee mu commencé cee lekk ndax man dama koy jël lekk ñu ne ko perte nga loolu lépp lu mu jàpp mu commencé cee lekk yow amatoo droit laal ko boppam la ko jàppal moo tax foog ñu tàggat ko foog mu xam ne moom dañ ko yónni suñ ko yónnee nag amul droit lekk ci lañ ko yónni lu dul mu jox ko ki ko yónni moo tax yàlla mu ne wa ma allamtum min aljawaarixi mukallibin tuallimuunahunna mimma allamakum allah yéen a ngi leen di jàngal xamal leen comme yéen ni leen yàlla xamale ndeke mbir mi du rek nga tëb ne ko anawa bismillah mu départ déedéet dafa am formation bu ci jiitu tuaddibuuna tilka aljawaarix da ngeen leen di yar tàggat leen bi adabi lazi addabakum allahu taala bi ci teggin gi leen yàlla yar yoon wi ngeen yàlla bi leen yolla yàlla jaarale ba tey bu ngeen jàppoon gàtt du ngeen ñëw rek xam nga yomb na trop tey doomu aadama war a lekk dara ginaar njombor xar béy nag ñëw rek fekk nag bi taxaw rek nga dagg pooj bi commencé saaf bàyyi ko mu taxaw dañ laa jàngal balaa ngay lekk benn rab bu yàlla daganal nooy def même rend bi sax dañ laa jàngal noo koy rendee même rend bi bu leen yaakaar ne da ngay ñëw jël sa baax rek mosoon nañ ma invité benn conférence ci benn dëkk bu tudd Nayoobe ci biir Louga madame fanaani fa ma xëy suba ñu toog nii ci cour bi ma gis benn waay bu yor béy ne ko nii keneen nekk ci ginnaawam ñoom ñaar ñuy dem keneen nekk ci ginnaawam yor paaka foofu ñu toog nii rek benn waaye siggi gis gis ñu ñuy romb ki yor béy baa ngi ci kanam ki yor paaka baa ngi ci ginnaaw mu ne fu ngeen jëmee béy bi mu ne allaaxira xoolal loolu rek nu mu grawee fu ngeen jëmee béy rek mu ne allaaxira yàlla bëggul loolu borom xam-xam lañ lay wax ne même bu doon ñaari xar ngay rendi sax nëbbal benn bi fee nëbb bee fee mbokk yi ma laaj leen benn laaj su fekkoon ay nit lañ taxawal def leen ci benn oto di leen wàcce par kenn kenn ñi di leen rey ñi taxaw di xool suñu nee numéro un bi di di ko rendi deuxième bi bala ñu yegg si moom nu muy def. voilà xool yéen ñëpp gis nga bi ma waxee loolu tey yow boo nekkoon numéro deux rey nañ un deux mooy da yow yaay deux te gis nga kii ni ñu ko def lan ngay sentir mën ngaa saw foofu sa tubéy mën nga dem àll ba mën nga crise cardiaque dee lu nekk foofu nga taxaw noonu mën na la fa dal moo tax bu fekkee ne nag fu loolu la moo tax yàlla subhanahu wa taala dafa indi ay teggin mu ne même booy rendi nañ ko ñàdd ñàdd bu dëgër paaka bi ngay rendee na ñaw inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqina yàlla bëgg na kenn ci yéen buy def dara mu rafetal ko yonent bi nee na même bu ngeen di rendi na rafet ñu ne ko rendi bi nu muy rafete mu ne ngeen ñàdd ko ñawal paaka bi bés ko mu teel a dee mala bëgguñu koy rendi yor paaka bu ñawul dañ bëgg paaka bi ñaw li ngay rendi nga rendi ko mu gaaw a dee waaye dañoo bëgg rendi bi na nga am yërmande donte ne rendi neexul waaye imaginer lu fekkoon nit la ñuy rendi mbokk yi kon loolu teggin gi yàlla def ci yéen na ngeen fexe rab yi ngeen di yónni ñu leen di rëbbal rab yi nañu am teggin yooyu na ngeen leen ci yar ba bu ñu jàppee ñu xam ne du pour ñoom pour yéen la loolu la yàlla subhanahu wa taala jàngale ci aaya bi mbokki julli di kon dana doy rek bis bu nekk li ñuy wax ñun ñëpp ñu war koo xam mu ne yii nii ñu leen wax bu fekkee dañ leen di yóbbu ci rëbb dañ leen di yónni ci rëbb rëbb la dem su boobaa na ngeen yëg ne fa kulu lekk leen mimma am sakk na lépp loo xam ne rab yooyu jàpp nañ ko na ngeen ko lekk fa kulu na ngeen lekk mimma am sakk na lépp luñ jàpp lépp loo xam ne jàppal nañ leen ko mimma am sakk na aleykum lépp loo xam ne jàppal nañ leen ko da ngay lekk te boo amoon xaj mu lay rëbbal mu jàpp njombar da nga ñëw rendi njombar bi lekk boo amoon base aigle mu lay rëbbal mu jàpp am pitax soo ñëwee rek da nga koy jël daal di rendi lekk daal di togg lekk su fekkee ne ñëw ngeen fekk la mu jàpp fekke ngeen ci ruu di ngeen di rendi rek daal di lekk su fekkee ñëw ngeen fekk la mu jàpp lekk na ci bàyyi leen ko moom boppam la ko jàppal waaye su fekkee ñëw ngeen fekk ngeen jàpp na ko waaye bi mu koy jàpp dafa dee su ngeen ko rendee ba koy lekk wazkuru smallahi alayhi tudd leen ci turu yàlla ngeen koy lekk wax leen bismillah xamara gaa yi di wax ne lekk yi jóge Europe wala lekk yi nga xam ne mu ngi jóge ci àll bi ay xar la ay nangam ak nangam ak yu dagan la te ngay sikki sàkk ne ay yéeféer ñoo ko rey ak nangam ak nangam sooy lekk yow waxal bismillah tudd leen ci turu yàlla wazkuru ismallahi alayhi xam ngeen jàng nañ aaya bu paase lépp loo xam ne dañ koo rendi tudduñ ci yàlla ah loolu medd la jàngoon nañ ko fi hurrimat aleykumul maytatu ah lan la wax foofu wa ma uhilla li gayrillahi bi lépp loo xam ne dañ koo rendi tudduñ ci yàlla reyuñ reyuñ ko ngir yàlla loolu araam naa lekk rawatina nag loo xam biñ koy rendi tudduñ ci yàlla loolu ab jullit waru ko lekk bu la leeree su fekkee fekke woo ko nag xamoo nu mu demee boo ñëwee booy lekk comme xar la wala nangam la booy lekk waxal bismillah tudd ci tur yàlla beneen bi mooy yonent bi nee na lépp luñ boole tur yàlla day am day am barke. lépp lu ñu boole turu yàlla day am barke su ngeen demee ci benn téere bu tudd salaahu yaqzan li tardi shaytaan ngànnaayu jullit bu koy protéger pour mu dàq seytaane yonent baa ngi fay nettali benn hadis ñaari seytaane yu daje seytaane bu pataa ponkal am doole mel nu ko neex ak seytaane bu mel ne bantu bale seytaane ponkal bi bantu bale bi mu ne seytaane ponkal bi waaw yow lu tax nga ponkal mu ne ko man de benn dof rek laa lekkal moom lu muy def rek du tudd yàlla moo tax man damay lekk ba suur gis nga ma mu ne buy sangu sax maa ngi moom ñooy bokk ndox mi bu tëddee ci bu tëddee ak jawaram sax bu tëddee côté bi maay tëdd beneen côté bi ndax moom du tudd yàlla ci ay jëfam xool ngeen ci sunna askaaru sunna yi ban ci ngeen gis boo amul bismillah booy lekk ñu ne waxal bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana booy dugg duus ñu ne bismillah allahumma inni aouzu bika min alxubusi walxabais booy tëdd di sëy ak sa soxna ñu ne la bismillah allahumma allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan booy yëg ci oto bismillah subhana allazi saxarana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina booy tëdd bismika allahumma amutu wa gis nga askar yëpp bismillah mboolem askar yi bismillah lépp dañ la xawal bismillah boo xamul nag ngay tëñax tëñax yi rek mu ne waa yow seytaane bu sew bi yow moom lu la def nii man de benn waaye boo xam ne moom lépp lu muy def bismillah la yow moo tax du ma mën a lekk bu tuddee tur yàlla rek ma daw taxaw fële mu seeñu yax yi sànni ji ko mbalit du ma desal dara moom lu muy def di wax bismillah moo gis nga ma maa ngi bëgg a dee nga ni ma mel kon ndeke même yonent bi nee na booy simmeeku as-sitr bayna ayunul jinni wa ah lan la bismillah même booy simmeeku da ngay gis bi ponkal mu ñëw rek kër kër kër kër viw plongé c'est pas ça de même booy tëdd bismillah booy simmeeku ñu ne waxal bismillah booy simmeeku sax da ngaa war a wax bismillah ndax yàlla aar la ci bëtu seytaane ñëw rek simmeeku waaw gis nga mais ñun suñu yoon suñu yoon ci askar yi moo tax léeg-léeg ci sunu sàggante askar yooyu loolu la ñuy jural ba ñu sàggante askaru sabah wal masa waaw li ma paa bi doon wax keroog dama bu ngeen gisee yéen ñi ngeen naan wird daa araam da ngeen dul tudd yàlla kese loolu kese moo tax ngeen koy ngeen koy wax ma ne ko déedéet du loolu wallaay wallaay danañ wird wird du lenn lu dul loo war a jàng ci alxuraan ci journée bi wala ay askar yoo war a def loolu mooy wird wirdul yow mii moom la ñuy wax ci hisnul muslim askaru sabah wal masa loolu kese la waaye dafa am yoo xamante ne moog yow yoo ñoo ànd dafa am askar yoo xam ne ci ay place nga koy def dafa ànd ak yow mooy yi ma wax léegi sànq fii yi ma wax yenn yi yooyu saa yooy def lii rek da nga koy def da nga koy wax askar yooyu laa budda dafa war a nekk ci salaam miñ booy sëy booy lekk booy tëdd booy dugg ci duus booy dugg ci oto booy booy booy comme ni ngeen ko xamee bëri na loolu nag su ko julli di def di ci boole ay askaaram yëpp da ngay dem ba loolu yonent bi waxoon waa ji laa yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah sa làmmiñ bi bu mu dañ di tudd yàlla maanaam foo nekk da ngay tudd yàlla foo nekk da ngay tudd yàlla boo ci boolee yeneen askaar yi nga xam ne par exemple foo toog bay jóg kafaaratul majlis ah nga boole yeneen askaar yi nga xam ne sahaaba yi nee nañ kunna nauddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aksar min sabiina mara yonent bi nee sahaaba yi nee nañ ñun daanañ konteel yonent bi muy wax benn baat rabbi ixfir lana wa tub alayna innaka anta tawabul ghafur daanañ ko daanañ ko ëpp ëpp ëpp 70 fois mu koy wax ci benn place bi mu toog loolu lañ bëgg ci jullit mu def ko askaaram kon turu yàlla dafay barkeel ci lépp luñ ko booleel mu ne waskuru smallahi alayhi waaye mbokk yi sunu borom tëjee na aaya bi wattaqullah moytu leen yàlla moytu leen yàlla de ku dégg ku dégg dëgg dëgg dëgg dëgg sax am xam-xam yàlla dafa liir ay loi ba pare mu ne attention de loolu la fekkee dégg ngeen ma yéen dégg ngeen baax yàlla daa ne lii la lii lañ war a def ci rëbb lii lañ war a lekk ci lu dagan lii lañ war a def ba pare nag mu ne ay tey ku ko deful mooy wattaqullah gis nga mboolem luwaay yi yëpp ci alxuraan yàlla bu ko waxee ba pare baat bi la ciy teg wattaqullah pour lan pour nit ñi mooy tandiku def loolu bàyyi li mu tere mais mala saf mbir mi balaa ñu koy def ñu xam ko mbir mi balaa nga koy def da nga koy xam wala fi nee nañ ku amul du maye waa ji lu mu baax baax baax baax baax baax baax nga koy ñaan kañ la lay may soo amul nag soo amul sax soo koy mu ne la xanaa yow samay bëgg nga bëgg ma jox la kii to la koy wax bu dëgër wala géey dootoo ko ñaanati parce que amul voilà kon yàlla liiral nañu article yi ñu war a def ba pare ci rëbb li ñu war a jàngal ak li ñu war a lekk lu teey te dagan ba mu jeexee mu ne wattaqullaha moytu leen yàlla ci def ay santaaneem bàyyi ay tereem na ngeen yëg ne inna allaha naka yàlla sariul xisaab ku gaaw ni muy rek lee la xef ak xippi rek adduna bi yëpp ku nekk xam foo jëm ñu war a jëm ajana jëm ajana ñu war a jëm safara jëm safara yéen yaakaar ne tey jii buñ doon fay nit ñi ci banque tey jii ñun ñii rek buñ demoon benn banque ñu ñuy fay dañ ñaan ñu rang leen wala ñu jox la ay numéro nga toog toog ba caag mu ne tent nga xool appareil bi gis sa numéro nga jóg yàlla amul loolu de ay xaar leen ngeen toog ay numéro inna allaha sari'ul xisaab ci xef ak xippi ñëpp xam fi mu jëm ñëpp xeefa xiif yi ñu war a jëm àjjana xam ne ñun àjjana lañ jëm ñu war a jëm safara jëm safara yaa ngeen ci suratu yaasin yàlla ne wa wamtaazul yawm ayyuhal mujrimuun yéen bandi yi génn leen ci biir nit ñu baax ñi bandi yëpp reculé ñu baax ñi taxaw gis nga yawma yuksafu an saaq wa yudaa da ngeen defe ne eh, jeex na yàlla tame la yor tame boo rëccee barrière bi am na beneen barrière wamtaasul yawma ayyuhal mujrimuun yéen bandi yi génn leen ci biir ñu baax ñi ñu baax ñaa ngi nii bandi yaa ngi nii ñu baax ñi tamit ñu indi beneen tame di leen seggati acca bismillah ana ñu doon julli yawma yuksafu an saaq wa yud'awna ila sujud fala yastati'un xaasi'atan absaaruhum tarhaquhum zilla bi ci yàlla teg waqad kaanu yud'awna ila sujud hum salimun su yàlla ne sujjóot leen rek ñi daan julli ne bërëb daal di sujjóot ñi daawul julli seen articulation yi ne kee nga taxaw yàlla mu yéen it génn leen acca noonu rek la ñuy seggee moo tax yonent bi alei salatu salaam nee na ndeysaan ak a garaaw téeméer boo gis kenn mooy dugg aljanna parce que segg bi la téeméer boo gis kenn mooy dugg aljana junni boo gis téeméer mooy dugg aljana moo tax yàlla mu ne sullatun min al awwalin wa qalilun min al axirin ñooy dugg aljana qalil qalil ñu njëkk ñi sax dinañ bëri tuuti waaye ñu mujj ñi junni boo gis téeméer mooy dugg aljana téeméer boo gis benn nit mooy dugg aljana yàlla na ci yàlla boole loolu mooy sunu darsa tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh